ak ki nga xam ne mooy waa euh, waali di xale bi mu yoroon ci këram mais aussi may ñëwaat ci leneen bari na ci ñoo xam ne nii ñenn ci askanu Sénégal seen xel moom mooy doxantu jëm ci ñooñu ñenn ci ñoom am ci ñu bari bari ñoo xam ne ci askan wi dañ leen a joxoñ baaraam donte ne du askan wi ci boppam ñoom ñoo war a décrire kii la wala du kii wala ñoom ñoo mën a prouver enquête wala ñoom ñoo mën a influencer wala dara mënul nekk parce que enquêteurs yi ko jox ñoom seen xam-xam dafay ci jëm ci wàll wi te képp ko fi ku ko fi mësoon a def fexe nañu ba teg loxo ñi la ko def daanaka boo dee xool ci ay fan yu néew dañuy teg loxo ki ko def comme ni mu demee ci faatu Abdou Aziz nii nga xam ne moom mooy Aziz Dabala ni waa dig def ba même pas deux jours même pas deux jours wala ñaari fan yi ci ginnaaw ñu jàpp ñenn ci ñi def mbir mi Touba gendarmerie bu Touba jàpp kenn ci ñi def mbir mi mu desaat ñeneen ñoo xam ne enquête dina leen dina wax ni ñii ci lañ bokk incha allahu rabbi parce que lu ñu lu mënti doon rek enquête dina leen génne parce que xarañteefu suñu enquête kat yi la te ñu bëgg lumière ci mbir mi ko ñi nga xam ne ñu ngi leen ciy tudd am na ci koo xam ne jot nañ koo entendre ndax gis nañu ay ñu bari bari di génn ay information comme quoi dañ ko metre en garde à vue maanaam dañ ko téye téewug néggandiku ma leen di wax ni loolu amut du information bu wér moom Nabou Leye mi ñu wax dañ ko cee téye garde à vue boobu la information du dëgg pour l'instant kenn téewu ko garde à vue nekkul koo xam ne dañu ko téewugum téewu néggandiku moom Nabou Leye ci li ma leen mën a xamal ci information yu juste et moom mooy ginnaaw bi mbir mi amee ba ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi koy war a découvrir découvrir corps yi ba woo police ba mu tàbbi ci loxoy waa dig enquête bi waa DIC woolu nañu Nabou Leye ñaari yoon ngir déglu ko ci dossier bi mu nekk àllarba jour bi nga xamee ne Sénégal gépp daanaka ñu bari ci ñoom ci lañ ko xëy yëg ndax ci guddi gi bi ñu ko yëg guddee na ci talaata gi jour boobu woo nañu nabu Leye ba entendre ko ci dossier bi mais biñ ko ci dégloo ba pare dañu ko bàyyi mu ñibbi këram mais tam démb aljuma aljumaay démb ji ki nga xam ne moom mooy Nabou dégluwaat nañ ko ci dossier bi woowaat nañu ko ba dégluwaat ko ci dossier bi mais biñ ko ci dégluwaatee ba pare moom Nabou dañu ko bàyyi mu ñibbi këram loolu mooy information yu juste et yi fa tukkee kenn téewu ko téewug néggandiku kenn defagu ko nenn kenn defu ko nenn nit ma nga këram ma nga fam war a ne fa ne waaye terewul déglu nañ ko ci ñaari yoon déglu nañ ci ñeneen ci ay doomu aadama mais turu Nabou Leye moo ci gën a fës parce que Nabou Leye ma fàttali leen ne moom mooy ki nga xam ni moom la ñuy wax ci biir interview yi daanaka jege ñaale ab ak Aziz balaa yëpp moom la ñuy wax ki nga xam ne moom moo mujjee jox Aziz balaa mu lekk ndax moo togg mbaxal ci këram yóbbu ko ci appartement ba ngir Aziz dabalaa mën a lekk parce que yaram daf yaramam dafa jagadi woon maanaam dafa amoon taga témbéy wér-gi-yaram loolu moo tax moom Nabou Leye mu daal di koy toggal ci càkkutéefu ki nga xam ne moom mooy ndemtu yàlla si indil ko ko këram waaye moom Nabou Leye ba mu koy indi ci kër Aziz Dabala nekk fa woon moom kese parce que vidéo bi circulé yéen koy gis moom Nabou Leye ngeen di gis ci vidéo bi ñaari ndemtu yàlla si di Waly ak Aziz Dabala mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir lieu yi biir lieu yi nag ña fa nekkoon ci interview bi ci ñoom liñ leen dégg ñu wax ko ak ci lu werte wóor mooy Boga mbay xarit ci Aziz Dabala mi ngi woon ci lieu yi jour bi nga xam ne nabu nabulay lay ngi fa indi mbaxal mi mais aussi Ndeye Yérim mi ngi woon ci biir lieu yi ñoom ñëpp a bokkoon boobu lieu toog parce ki nga xam ne nii moom mooy nabulay bi mu toggee togg gi ba pare di ko yóbbu dafa woo seen xarit yi ñu tàmm àndal ñi nga xam ne ñoom ñoo tàmm fréquenté kër Aziz Dabala bokk na ci ñi ñu gën a ràññee bokk na ci ñeneen tamit waaye ñi ñu gën a ràññee ci jour boobu mooy Boga Mbaye fecckat Ndeye Yërim fecckat ak Naboulaye mi nga xam ne ay jegeñaaleem lañu bañ nañ ko ba milieu aar bi ñoom wax nañu ne ñii ñoo Aziz Dabala ñoo ci duggandoo ñi ci des Aziz Dabala moo leen ci tette maanaam ñoom ñëpp a bokkoon benn fief buñ ci génnee ki nga xam ne moom mooy Goga mbay ñoom ñi ci des ñëpp ñoo bokkoon benn fief parce que ñoo bokk ginnaaw raay Aziz Dabala bokk ci ñi leen yar bokk ci ñi leen dugal ci aar bi waaye itam boo bokk ci lum leen jariñ lool ci aar bi boole leen ceeg ay nit am fu bari foo xam ne bu ñu fa eggee tey ginnaaw ak Aziz Dabala la te loolu yaakaar naa waxuma la ay enquêtes yu ko yu ko yu ko prouvé mais interview yi rek dégg ngeen ci ñoom ñi jot a wax muy Ndeye Yérim muy ki nga xam ne mooy euh, Boga mbay ñoom ñëpp dikk nañ ci lu nu mel te li ma wax la ñu wax mooy ku ci nekk rek sa carrière artistique moom Aziz Dabala am na ci lum la ci andil am na lum la ci yokkal parce que ñoom ñëpp bokk nañ ci ñi mu tettee loolu moo tax tamit ñu bari bari bari ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jege jegeñaale Aziz Dabala comme Aziz Dabala feebar bi ko tëraloon wala feebar bi ko daloon tëralu ko maanaam nekkul loo xam ne dañu naan daf ko tëral parce que gisoon nañu ne malgré tout mi ngi doon wax téléphone il vaquait à ses occupations donte ne nday yërim nee na ci biir wax ji ba ñu waree dem Tarba Mbay ci guddik samedi gi moom bi mu eggee ba Mbuur ci soirée Tarba Mbay bi dafa gisul Aziz Dabala alors que ñoom ñoo waroon a bokk chaîne bi jour boobu mu laajte ko ñu ne Aziz kat ñëwul mu woo ko téléphone Aziz ne ko yow dama feebar bàyyi naa la message mais liiroo ko woo naa la la jotuma la moom nday yëri moo wax loolu loolu tax ba moom nday yërim nee mu def la tuuba bi mu ñibbisee bëggoon daw si seet si Aziz Dabala parce que lim ko ne damaa feebar ci téléphone mais dégg ngeen boogaa mbay fi mu waxee foofu la gëj a gisee Aziz Dabala ak jokkoo bi mu doon jokkook moom téléphone mais tamit dégg ngeen ñeneen ci ay xaritu Aziz Dabala ñoo xam ne nii toog nañ ci ay interview ba wax ni kii ne moom mook da Dabala dimanche bi ñoom ñoo nekk ba 19h maanaam juróom-ñaari waxtu ci ngoon di heure timis nee na dimanche bi ñoom ñoo nekk ba heure boobu moom sax ci biir interview bi dem na banaan xëy na bi mu ñibbee la ki def ñaawteef gi ñëw ci ginnaawam def li nu mel parce que ci diggante bi dafa gaaw moom ci biir interview bi ba tey nee na Aziz Dabala ginnaaw bi mu ñibbee moom këram woo ko téléphone Aziz Dabala daf ko ni damay def ay perfusion waxul ne Aziz Dabala da ko koo wax ci bi mu nekkee ci kër ga waxul loolu daf ni bi mu ñibbee ba woowaat Aziz Dabala téléphone Aziz dafa ko ni man de maa ngi nii damay def perfusion nee na ci la ko ni ah da def perfusion mu ne ko waaw mu ne ko naa la bàyyi nga noppalu ko mais ci beneen interview gis ngeen beneen ci jegeñaale Aziz Dabala keneen ci ay xaritam daat ne moom de ba dimanche mi ngi déggante ak Aziz Dabala parce que nee na bi mu koy woo. jotu ko mu woo ko jotu ko mu insisté Aziz Dabala da koo jël daal di koy woo appel vidéo ne ko man de dama xaw feebar sama yaram dafa sutante ba maa ngi nii sax di def appel di def perfusion mais Aziz Dabala da ko firndeel ne ko maa ngi nii di def appel euh, perfusion parce que daf ko def appel vidéo wan ko perfusion yi muy def kooku tam daan ne ko ñaanal ko ndax ñoom ñaar ñoo waroon a ànd dem Touba ci màggal gi ndax Aziz bari na ñoo xam ne ñu ne ñoom ak Aziz ñoo waroon ànd dem Touba xam naa bande de copains lañ boo xam ne tout le temps wala chaque année ñoom ñooy àndandoo demandoo ci màggal bi donc ngeen dégg ci interview yi ñaar ba ñetti nit yoo xam ne nee nañu ñoom ak Aziz balaa ñoo waroon a ànd dem ci màggal gi te seen dem googu ñu ngi ko jàppoon talaata. talaata bi ñu gisee ni Aziz Dabala ñàkk na bakkanam ci biir apartement bi mais ñoom ñëpp li ñu ànd wax mooy ginnaaw dimanche bi ñu ko woowee woowaatuñu ko walla kenn ku ko ci woowaat lundi ba lay doon te ku ko ci woowaat doo ko jot dañu ko woowaat woowaat ba sonn jotuñu ko ñu bari ci ñoom toogaat ba guddi jaaxle lool ndax jotuñu ko te ñu bari ci ñoom daf leen waxoon ne leen talaata la ñuy dem Touba am na ku ci wax sax ne Aziz daf ko ne ñëwal sama kër nga fanaan fa bu ñu xëyee ñu dem kon moo doon lundi la waroon a fanaan mardi bi ñu ànd dem Touba mardi boobu nag malheureusement ci la ñu découvrir néewu da Dabala ak ki nga xam ne moom mooy waali boobu xaw naa guddi ndax lëndëm na ay vingt une heures jàpp vingt deux lañu ko découvrir ci biir fi nga xam ne moom mooy apartement bi mais ci kan moo ko découvrir wala ci ñan ñoo ko découvrir bokk na ci ki nga xam ne moom mooy Nabou Leye ñëwaat encore une fois Nabou Leye nga xam ne nee naa leen waa dikk entendre nañ ko ñaari yoon ci mbir mi Nabou ginnaaw bi mu woowee xaritam di Aziz Dabala jotu ko mu insisté insisté jotu ko dafa dal di gàddu ay tànkam ñëw dem ngeen ba gis ci interview bi dëkkandooy Aziz Dabala di wax ni am na ku jigéen koo xam ne da doon jaabante di dem di ñëw di jaabante di dem di ñëw te ñoom firnde gi mooy Nabou la di wax ni day ñëw xool si Aziz Dabala ndax mi ngi ci kër gi wala nekku fi bu ñëwee fëgg ba sonn mu dem ba ci mardi bi ci guddi moom Nabou Leye mu ne dafa am xet gu koy xeeñ te xet googu mu ngi koy xeeñee ci kër gi rawatina ci biir appartement wu ki nga xam ne moom mooy Aziz Dabala ci la laajee boroom kër gi ne ko damaa bëgg ibbi buntu bi boroom kër gi ne ko joxuma la ndigal ngir nga ibbi ko yow na ay mbokkam ñëw wala ñi nga xam ne ñoom ñooy jege ñaaleem wala ku bokk ak moom nday ak baay dégg ngeen defe naa rakku Aziz Dabala bi yooyu ci turu Aida moom na bu lay daal di woo ayda wax ko ko Aida ne ko xaaral ma woo sama frère sunu frère ñun ñëpp moo mag Aziz Aziz topp ci moom ndax ayda mooy seen caat mu woo Moodu moomu di Moodu kan di frère ci Aziz ne ko dawal gaaw ci kër Aziz parce que xaritam bii di Nabou Leye nee na dafa bëgg a buntu Aziz Dabala dugg ci biir wax ko daal décrire ko ni mu demee ne ko borom kër gi nag nee na mënu koo jox ndigal tànk ku bokk ak Aziz Dabala nday ak baay ñëwut nee na comme Tivaouane Peulh ak fii dafa sore ak pikin lépp ci Pikine la waaye sore na xaw naa xëcc Nabou Leye yàkkamti ba ne ko kat yow ayda est-ce que doo wax ku gën a jege mu daw ñëw ndaxte fële sori na te yaakaar naa mënatuñoo toog di xaar ci la woo beneen frère am ki topp ci Aziz Dabala di wuyoo ci turu Malick ñu daal di koy woo Malick laataa muy daw di ñëw tombeek naag Modou kan egsi di seen frère di seen mag ñoom ñëpp Modou bi mu egsee ci li ñu dégg ci li nga xam ne moom moo tukkee ci seeni gémmiñ ñoom ba ñu ñëwee ñoom ñu njëkk dajji bunt bi ab menuisier dajjil leen ko ñemewuñoo dugg ba menuisier bi tëjaat bunt bi dañoo ibbi ba pare te ñemewuñoo dugg yàlla ni dara tëwul dogal rakkam ji do ji may ji ma wax léegi Malick daal daw si ñëw juste tombé ci loolu Malick ne leen nañ leen dajjiwaat nañu ubbiwaat bunt bi menuisier bi defaat même chose ubbiwaat bunt bi moom Malick moo njëkk a dugg di frère ci Aziz balaa topp ci moom ba mu duggee jubali ci néegu Aziz Dabala malheureusement ci la fekk ci salle bi ki nga xam ne moom mooy Boubacar Gaano di waali tëdd ñu jam ko ñu jamate ci biir bi ba neena na butit yi génn parce que demoon na nee na ba butit yi di neewi ndax diggante bi ñu leen faatee ak bi ñuy découvrir corps yi dafa am ak diir moom Malick nee na bi mu gisee loolu ci la jaxasoo nit ak i mbokkam nit ak jaaxleem nit nga tiim sa moroomu doomu aadama te néegoo ko ci moom ñu rey ko mu tëdd Malick daw génn xamul fu frère nekk xamul ci lu mu nekk waaye fa la jaar daw génn nee na boobu jaxasoo na kum doon yow di yow nee na nag ci la ñu génn gis ne waali mii ñàkk na bakkanam nee na ci la ñu daw woo polis ndax mbir mi jéggi na daye ci ñoom bi ñuy woowee police bu pikin ku xam ni mu bindoo dëgg dëgg dëgg xam police bu pikin ak technopole bi ni mu bindoo xam ne soriwut ku xam lieu yi xam ne soriwut ci la nag waa police bu pikin daw si ñëw ci lieu yi fekk ki nga xam ni moom mooy menuisier ba ñu dajjiloo ko porte yi ndax dañ ko tëjaat ñu ubbiloo ko porte yi ngir ñoom ñu dugg bi ñu duggee ñoom def nañu constat ci Wally mi nga xam ne mi ngi tëdd ñàkk ba kanam bu yàgg ba commencé neew yi waaye itam jamono jooju comme mbokki Aziz Dabala ak ay jegeñaaleem ya fa nekkoon gisuñu Aziz nee nañu wër nañu gisuñu waaye nag seen xel du leen mën a may lépp ndax jamono jooju jàq ak njàqare mi ci ñoom tax na ba police ñëwee police ñoom ñoo obligé ubbi li nga xam ne moom mooy saalu Aziz dabalaa fekk Aziz dabalaa ci saal bi ñu mu tëdd ay jam-jam yu bari bari ci moom mu ñàkk bakkanam ba ñu sàng ko mais néewu Aziz dabalaa moo gënoon a décomposé wu maanaam moom la ñu gënoon a gis mu gën a yàqu ndax ku ne xam na ni bi ñu tëjee Aziz dabalaa foofu aération mën na faa bañ a am fu ngelaw di dugg ba néew bi no néew bi mën a mën a am ngelaw loo xam ne du teel a yàqu mais ki nga xam ne moom mooy euh, Wally Aziz néewu Aziz moo gën a yàqu ngeen baal ma ci wax ji parce que information la ñuy joxe faaw ñu jaar ci digg bi parce que kat Wally fi ñu ko fekk mu tëdd am na aération am na air fu muy duggee donc frère bi gisu ko parce que néegu ñoo tiim seen rakk wala seen mag mu tëdd ci suuf ñu faat ko police def constat police scientifique ñëw def constat yi mais aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy sapeur pompier ci bi nga xam ne nii ay deux heures du matin jot na ci la ñu ñëw acheminer ñaari koor yi ñu bari bari nag ñu ngi wax ni bi ñuy génne ñaari koor yi koor yi dafa décomposé woog yeneen ak yeneen ak yeneen amut parce bi waa sapeur ñëwee ba def li ñu war a def police scientifique ñëw def ñi nga xam ne ñoom ñooy police bu Pikine ñëw ñoom bi ñu paree pour jël koor yi dañoo ñëw facilement yëkkati koor yooyu yóbbu donc amu ci li ñuy wax lu bari bari amu ci waa kër Abdou Aziz Dabala nag jotu ñoo tiim néewu Aziz Dabala ci biir kër ga foofu parce que mënuñu ko woon a tiim waaye dégg ngeen frère nee na ki nga xam ne moom mooy menuisier bi moom moo jota gis néew bi ba mu génnee la ko defal ay seede ne ko Aziz néewam moo gën a yàqu sax bu waale menuisier bi moo ko dolli loolu ci li mu bëggoon a xam kon lii ma leen wax nii fi ma jaarale film bi fii la jaar li ma leen wax ci information yi ci tukkee moo ci am lii moo mooy li ci xewagum jàppagum nañ ci groupe de personnes boo xam ne ñoom bokk nañ ci ñu faat Abdou Aziz Ba ak Boubacar Gaano Diwaali ak Aziz Dabala ñi jàpp groupe de personnes boobu nekkul ñenn ñu dul waa division d'investigation criminelle di waa DIC gi nga xam ni am nañu leen dollil ci boobule lanket di waa gendarmerie bu Touba bi nga xam ni ñoom ñoo jàpp ki ñuy woowee Mamadou Lamine jaawo ñu gën koo xam ci Modou mi nga xam ni nee nañu ginnaaw raay la fekk baax fa la dëkk waa ginnaaw raay la comme Aziz balaa mi ngi judd ci 1999 nekk ab maçon la jàpp ca Touba Ndaamaatu mu màggali ji woon kooku bokk kook ñeneen waral ba jamono ji may wax ak yéen ki nga xam ni moom mooy ki ki ñuy ñi ñuy jiiñ ci meurtre bo ci meurtre yooyu kooku di Mamadou Lamine jële nañ ko Touba di ko indi Ndakaaru ngir jébbal ko waa DIC bi nga xam ni ñoom ñooy continuer enquête bi ci wàll wi fekkoon na tamit moom bi ñu koy euh, jëlee foofu ca gendarmerie bu Touba ginnaaw